mbokk alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom ci wërsëgal gi ñu daje lay fii wërsëgal ñu ko ñu daje ci am néegam tey jii di àllarba yi fukki fan ak ñett ci weeru shawal 1439 muy wane ni kon ñoo ngi jóge ci shahru ramadan di weeru barkeel woowu suñu borom wërsëgaloon ñu ñu dund ko mboolem lañ ca jaamu yàlla yal na yàlla nangul ñu ko xam ngeen nit ne programme biñ daan def ci tafsir bi su weeru koor masaan jot au lieu ñu koy def par guddi àllarba wala àllarba ci guddi boog di guddi ak alxames dañ koy def ci bés bu nekk looloo tax ci biir weer bi yàlla dogaloon na ñu jàng ci ñaari saar yu mag di saar yu ëmb atte yu bari ci attey lislaam muy suratu nisa ak suratul maida mi ngi noonu falilahi alhamd am na ay sit yoo xam ne soo demoon noon ko fa fekk lu mel ne ci xam sa diine point net bi wala xam islam point com yàlla dogaloon na yépp ñu ubbi ci suratul an'am di saar wu mag wi nga xam ne ci lañuy war a dal tey ci ay juróom fukki bi ak ñett ñu ngi noonu fi su ci page bi mooy nekk 134 134 ay juróom fukki ak ñett wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd ñu ngi noonu kon ca lañu dal saar bi ba jotuñ cee jël ba war a yëg si tey ci aay bi nga xam ne mooy aaye juróom fukki bi ak ñett kon di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla defal ñu tawfiq ba téeréem bi mu xamal ñu ca lañ cay jëriñ wërsëgal ñu it ñu jëfe ko jëfe gu ñuy jural ngërëmam man mi ngi noonu Cheikh Ali waaw
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم sunu borom mu ni wa kazalika naka noonu day fatanna baadahum bi baad lañu fitnaale lenn ca ñoom ca la ca des li yaquulu ngiri ña nga xam ne yàlla da leen a xéewal ñu nekk ay yéeféer ñuy wax naan a haulaai manna allahu alayhim min baynina ama ndax ñi di julit ñu pauvre yi la yàlla baaxe ci suñu diggante alaysa allahu bi alama bi shakirin ndax yàlla nekkul di gën a xam ña nga xam ne ñoo koy sant wa ida jaaka alladina yuminuuna bi ayatina heure bu la dikkalee ñi nga xam ne dañoo gëm suñuy aaya fa qul salaamun alaykum waxal jàmm day mi ngi nekk ci yéen kataba rabbukum ala nafsihi rahma sa borom day bind na ci boppam seen borom bind na ci boppam la nga xam ne mooy yërmaande ay faratal na ko ci moom annahu man amila minkum su'an bi jahaala ca mooy képp koo xam ne jëf na ci yéen ñaawteef ci ñàkk a xam summa taaba min baadihi wa aslaha mu tuub gannaaw loolu daal di yéwénal fa annahu gafuru rahim sa borom yàlla day ku jéggalaate la ku yërëmaate la wa kazalika nufassilu l ayat naka lii day la ñuy teqalee aaya yi wa li tastabiina sabilu lmujrimin ngiree mu ràññeeku yoonu ña nga xam ni dañoo nekk ay kaccoor ay def koto bakkaar ya qul inni nuhiitu an abuda alladina tad'uuna min duni illah neel man day dañ maa tere may jaamu li ngeen di di jaamu li ngeen di woo ca du yàlla qul laa attabi'u ahwaakum neel man de duma topp mukk seeni bànneex qad dalaltu idan su ma defee lool day kon sànku na wa ma ana min al muhtadin ca bokk moo ci ñi nga xam ne dañuy doon aju jub mi ngi noonu mbokk yàlla dogaloon na bi ñuy mujj tafsir ci weeru koor gi ñu ngi doon jàng aaya bi nekk ci sa page yu ndeyjoor lenn ci kilifa yéeféer yi dañoo ñëw ne suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam li ngay woote day lu baax la waaye nag ñun ak daraja ji ñu am mënuñoo ñëw di toog ak sa baadoole yi fokk jataay ba ngay toog ak ñun danga leen di wax ñoom ñu bañ ñoo jege loolee suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam demoon na sax ngir bëgg propagandal l'islam bëggoon na dem bay xaw a ànd ak ñoom ci loolu suñu borom yàlla nag na ko déedéet ñii nga xam ne dañu laa dikkal di tudd yàlla suba di tudd yàlla ngoon bu leen soril mukk bu leen dàq mukk bis boo ko defee da nga bokk ci gaa yi tooñ tey nag suñu borom ne nii laa fitnaale jaam yi ca mooy ñi ànd ak yonent yi naka jekk déppi yonent yàlla Nuux ña nga xam ne ñoo jëkk wuyu si woote yonent yàlla la ci ëpp mooy ay baadoola la ñuy doon ay pauvre la ñuy doon léegi nag yéefar yi bokk na luñ leen layee ñoom nga defe ne mbaaxug yàlla ci ñii lañ koy xame ñii nga xam ne amuñu dara suñuy surga lañu suñuy jaam lañu soxla bu ñu am ñoo koy faj nga defe ne ñii bu doon ñi yàlla baaxe ñii la déedéet gis ngeen ca mooy kon ñoom ñu jàpp ne ñoom ñi yàlla xëpp àdduna ñoom ñooy nit yàlla ñooy farandoo yàlla borom boobu nag subhanahu wa taala ne est-ce que yàlla moom xamul ñu koy sant ca mbokk ñan ñooy sant yàlla mooy jullit ñi ko gëm toppab yeneen tam ca it jullit loolu lay gëm jullit day gëm ne wallahi àdduna li ci biiram buñ ko dajale woon jullit du ko jëndee benn julli ci julli borom bi ndax dana am abadan kaay ñu jël trésoru kaw suuf yëpp jox la ko ca nga bàyyi julli tàkkusaanuk tey ndax da nga ko nangu abadan kon nga xam ne yàlla jox na la xéewal goo xam ne kenn du ko méngaleeg trésoru kaw asamaan ak suuf loolu kon moo tax ba suñu borom ne dëgg-dëgg laqad manna allahu alal muminin yàlla kay dëgg-dëgg baaxee ne jullit ñi ay bim leen booleeg yonent boo xam ne ah da koo génne ci ñoom ñu gëm ko loolu kon jullit xamal loolu ki ëpp xéewal ci kaw suuf moom mooy jullit même bu nekkoon ci biir prison ya même bu nekkoon ca ña gaana ak fu mu mën a nekk ki ëpp xéewal gu mu am ci kaw suuf mooy ñi yàlla boole ci ñi gëm borom boobu nag subhanahu wa taala ne yow yonent yàlla bi kay contraire lu yéefiri bëgg ci yow waxuma bul dàq baa doole yi waaye boo leen gisee accueillir leen yaatal leen salaamun aleykum ca loolu itamit bari na manki lool kilifak diine wala kilifak àdduna gu yàlla may alal dana jafe ci ñoom koo xam ne nii dafay yemele ñi ñëw ci moom ñëpp yemele ña ca am ak ña ca ñàkk loolee ku ñëw mu teeru la ak ay jafe bari na fii ay ñu yàlla ubbil alal waaye wallahi seen mbokk yi nga xam ne ñoo sës ci ñoom rëkk ñii ñoo bokk ay wayjur wala bokk ay benn maam ñemewu ñoo dem di yendu seeni kër ñemewu ñoo dem di toog ak ñoom lu tax ndax na mu tëjoo ci ñoom na mu ñagasale kanamam ci ñoom xëy na lam leen siqal ñoom lu mu am sànni leen ko am maa nag yaatal leen ci boppam déedéet loolu mbokk lu ñuy remarqué la rawatina arriviste yi nga xam ne barki démboo njaay ñoo seen i bàyyi amuñu dara yàlla xëy xëpp leen alal toujours da ngay gis ne dañuy def baaraaj seen digganteeg ñañu waroon a yaatal amma yow yeneen ci bàyyi salaam jurit ñooñu nga xam ne dañoo néew dele koo ci gis yaatal ko loolu tax sallallahu alayhi wa sallam ñi ko gënoon a jege sosoon ci moom mooy ñi amul woon dara xoolal bokkoon na principal ki gënoon a sus ci moom mooy ki ñuy wax Bilal Bilal ab jaam la woon cosaan muy benn nit ku ñuul la woon muy ñaar di ñaari di mbir yoo xam ne dañoo gis ne arab yi ci ñiñ gën a xeeb la yonent bi alayhi salaam sësal ko ci moom rëkk jox ko noddam ga jox ko lam amoon a kës néew ñu ko daan tudde trésor Bilal moo ko doon gérer loolee kon ñu gis kon salaamun aleykum ca xam leen ne yàlla bind na ci boppam yërmaande lu way mënoon a def ci ñàkk xam mbokk def ci ñàkk xam firiwul ni da ngaa xamul ne mbir mi araam na benn jullit a ngi nii doon naan sangara xëy xëy bëgg a tuub ndax dañ naan ki yàlla di baal mooy ki doon def bàkkaar ci xamul déedéet ñàkk xam googee bokk na lu ko borom xam-xam yi di firi mooy ñàkk a bàyyi xel conséquence su bàkkaar bi am ma xam bàkkaar yi moom loolu jullit ñëpp xam nañ ko jullit xam nga ne rey nit baaxul xam nga ne sàngara baaxul xam nga ne njaaroo baaxul am maa nag nekkoon nga ca 40 ans xëy suba ne tub dellu ci yàlla suñu borom mu ne dafa bind ci boppam yërmaande képp koo xam ne da doon def bàkkaar ci ñàkk xam dayub borom bi màggaayu borom bi conséquence borom bi mu dem ba yàlla ubbi xolam mu tuub suñu borom yàlla dana ko jéggal suñu borom yàlla dana ko yërëm te loolu itamit moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ñu gënoon ñëw wër ko ñoo xam ne xeex nañu ak moom rey nañu ay sahabaam bundu xatal nañ ko màkk lu ne def nañ ko ko ñu ngi noonu mais keroog biñ tuubee dugg ci lislaam yenent bi da leen a yaatal yemele leen ak ña nga xam ne ñoo ko gëmoon ca jëlbeen lu tax ndax suñu borom nee na képp ko tuub rek xamal ne yàlla yërëm na ko jéggal na ko kon it yow yenent bi yërëm ko jéggal ko loolu mu wane ne yow julit yow it yërëm ko jéggal ko lépp lu way mënoon a nekk ci kaw suuf ci bàkkaar ñu yëg ne tuub na ko nañ ko jéggal nañ ko nañ ko yërëm mi ngi noonu gafur rahim borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne nii la ñuy teqalee aaya yi ngir ñu xàmmee yoonu ña nga xam ne dañoo réer ca mbokk julit nañu xam ni mbaaxug yàlla yoonu njub kenn du ko xami ci alal juy yokk ñu bari ci nit ñi nag loolu da leen a da leen a nax dañuy ñëw créer fi benn bida biñ ko créer ren benn nag lañ amoon déwén ñett après déwén fanweer après cent ila axiri alal jaa ngi gën a yokk mbooloo maa ngi gën a yokk ñu jàpp ni lii mi ngi nekk ci yoonu njub déedéet bokk jurit njubug yàlla kenn du ko xamee ci alalu àdduna buy yokk bu dee loolu say boo ñëpp dem nekk ay yéeféer ndax quatre-vingt pour cent ressources yi nekk ci kaw suuf mi ngi ci loxo yéeféer yi kon njubug yàlla dañ koy xamee ci ay tegtalam ak i dalilam mais pas ci ne rek ñii ñoo am ñii ñoo ñàkk suñu borom mu ne leeralal naa leen ña nga xam ne ñooy aji ñi ànd xéewalu yàlla mooy ñi nga xam ne dañoo tuub di dellu ci yàlla jàll waala amma ñi nga xam ne dañoo sax ci seen kéeféer ga lu ñu mën a am ci xéewalu àdduna it nañu xam ne natt la bu leen yàlla nattoo ngiree gën a yokk seen i bakkaar ngiree gën a yokk seen bëggal yowmal qiyaama gannaaw ba nag la suñu borom ne yeneen ci yàlla bi nee leen man de tere nañ ma may jaamu li ngeen di woo ca du yàlla mi ngi noonu ca itamit tere nañ ma may topp seeni bànneex ca mbokk jullit ñaari mbir yooyu bàyyi ko xel ngalawaay jullit bul jaamu ku dul yàlla ngalawaay jullit bul jaamoo yàlla lu dul la yàlla digle bu ko jaamoo bànneexu kenn ku mën a doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom nee na wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha moom bànneexu bakkanam amul lenn lu mu dugal ci diine ji lépp yàlla ko sant mu jottali ko loolu it kon ñaar yooyu la juri di bàyyi xel jaamul yàlla boo ko bokkaaleeg dara jaamoo ko la yàlla waxoon ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam ñu jaamoo ko noonu du ma topp mukk seeni bànneex su ma ko defee day xamal ne réer naa ca bokk ma ci ñu jub te it mbokk bànneex a ngi noonu sawaaxul bànneex yi nekk directement ci diine ji muy ban muy bidaaya xurafaat ya wala bànneexu àdduna jullit dafa war a góorgóorlu xam ne diineem balaa ñoŋ day moytu yooyu bari na nag ñu bari ci jullit ñi jàpp nañ ne maa ngi julli maa ngi woor jeex na yi ci des moom mën naa cee nekk waaye mbokk loolu njuumte la islaam ñaari mbir la benn bi jëkke bi mooy bàyyi bi ci des ngay doog a jàpp balaa sa njàpp rafet da ngay bàyyi la yàlla tere lii mbokk mooy la nga xam ne lañu suñu borom wax suñu bind bu njëkk mi ngi noonu Cheikh Ali
قل إني على بينة من ربي وكلمتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
barakallahu fiik suñu borom mu ne yow yonent bi neel qul inni ala bayyinati min rabbi man day maa ngi ci lay wu leer wu bawoo ca sama borom wa kazzabatum bi yéen nag ngeen weddi ko maa indi maa tastaajiluuna bi nekkul ci man day la ngeen nekk di yàkkamti jëm ca inil xukmu illa lillah ab atte nekkul lu dul ñeel yàlla yaqussul xaq mooy wax dëgg di nettali dëgg wa huwa xayrul fasilin te moo gën ci ñiy teqale diggante ay jaamam qul law am na indi ma tastaajiluuna bi neel bu doon dafa nekk ci man la ngeen di yàkkamti jëm ca day la qudiya al amru bayni wa baynakum kon dees na woon dogal mbir yi sama digganteeg seen diggante wallahu aalamu bi zalimin seen borom yàlla day moo gën a xam ña nga xam ne ñooy tooñkat ya wa indahu mafatihul ghaybi nekk na ca moom lii di caabi kumpa laa yalamuha illa hu kenn xamu ko ku dul moom wa yalamu ma fi lbarri walbahr xam na la nekk ca jéeri ja muy suuf sa ak la nekk ca géej ga wa ma tasqutu min waraqatin illa yalamuha du rot mukk ay du wadd mukk benn xob lu dul yàlla xam na ko wala xabatin fi zulumaati al ard du doon benn pepp ci biir lëndëmi suuf wala ratbin wala yaabis amul lenn luy tooy wala luy wow illa fi kitaabin mubin lu dul nekk na ci téere boo xam ne téere bu leer la mi ngi noonu jalla wa ala mbokk suñu borom mu ne yow yenent bi nee leen maa ngi ci lu leer lu bawoo ci sama borom ñu dégg ci ne kon yonent yàlla bi day ab jaam la ndax nee na lu bawoo ca sama borom li mu indi it nekk loo xam ne lu leer naññ la benn lënt amu ci ca mooy nañ jaamu yàlla bañ ko bokkaaleeg dara jaamoo ko na ko yonent bi jàngale suñu borom mu ne yow yonent bi ba tey yii nee leen yéeféri day yéen a ngi doon ñuy weddi loolee bokk na ci weddi gañ doon weddi gëmuñu la tey gëmuñu la ëllëg su dee li ngay wax dëgg la tawalal ci ñun xeeru jóge kaw asamaan mabbalal asamaan suñu kaw suñu borom ne ko nee leen li ngeen di bëgg di ko yàkkamti ci mbugal day ne nekkul sama loxo yàlla mooy àtte ci jaamam lu ko neex te it mbokk mi ngi noonu yonent yàlla yorul mbugal yorul njëriñ yàllay atti lu ko neex looloo tax xëy du jëkk ya suñu borom yàlla atte na ci ñoom xawmu nuux huut saalax ñoom ñëpp yàlla da leen a alak ci kattanam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na lum ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla bu yàlla boole xeetam yépp alak mi ngi noonu waaye yàlla ma yor atte looloo tax aay yi ba muy wàcc yonent bi alayhi salaam ma nga ci biir Makka yàlla dogal na ñu teg ca année yu néew yàlla génn ko Makka mu dem Madina bi mu demee Madina kàngami Makka yi ko gënoon a sonal dajale benn armée dajeeg moom ca Badr ban dajeeg moom ca Badr ñu rey fa juróom-ñaar fukk ci ñoom yeew juróom-ñaar fukk yóbbu Madina kon kay yàlla àtte na seen diggante moo tax mu ne inal xukmu illa lillah gannaaw ba it bokk na la yàlla dogal mooy waa Makka bu ñu doon mille xamal ne neuf cent quatre-vingt nangam ya yépp dañoo mujj tuub dugg ci lislaam loolu mooy àtte bi yàlla ci ay jaamam loolu it mi ngi noonu yàlla moom moom ay jaamam di àtte ci ñoom lu ko neex looloo tax kii mooy guddal fanam kii mu gàttal fanam kii mu wërsëgal ila axiri borom boobu nag nee na mooy wax dëgg ca mooy li yàlla wax ci téeréem da mooy dëgg ay wax lu mu bari bari bari comme suñ jamonoy tey wallahi bus bu nekk nga dégg loo xam ne bi alxuraan waxee jaar ndeyjoor dañoo wax jaar càmmoñ waaye ngalla waay wax yi lu mu bari bari xam leen ni li yàlla wax rek ay dëgg li yàlla wax mooy xew yowmal qiyaama loolu rek kay dëkk ak loolu lépp safaan nag moom bëri bëri borom boobu nag ne moo gën ci ñiy atte ay jaamam tey di wax naa la ko sànq mujj ne atte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak la nga xam ne mooy waa Quraysh keroog ca Badr mi ngi noonu def na ca ñoom la ko neex amma yonent bi yàlla bi la ko suñu borom waxoon mooy mbir yi dara nga ci amul laysa laka min al amri shay'un mi ngi noonu fasbir li xukmi rabbik muñal ba sa borom atte suñu borom mujj na atte borom boobu nag ne yow yonent bi alayhi salaam ne leen man day bu doon te ne mbir yi sama loxo la nekk kon doon naa atte sama diggante ak yéen te xam ngeen mbokk doomu aadama ak ni mu yàkkamtee ak ni ñu doon saboté yonent yi mu ne bu doon man am naa mbugal bu mu mën a indi kon indi woon naa ko sama diggante ak yéen waaye suñu borom yàlla subhanahu wa taala day mooy ka nga xam ne moo gën a xam tonkat yi loolee bokk na luñ ciy dégge mbokk suñu boroom bokkoon na ci aadaam yonent yi mu daan yónni ñépp ñu néew doole lañ daan doon su ko neexoon day jël ku mel ni Firawna ak pouvoir bu mu amoon mu yónni ko mu nekk yonent mais su boobaa da ngay gis ndigal yi muy joxe ñoo bari ci nit ñi daañ ko topp topp ñu ko ngir yàlla waaye dañ ko topp ngir ragal firawna yu bari yi muy tere nit ñi dañ ko bàyyi bàyyi wuñ ko ngir yàlla waaye dañ koy bàyyi ngir firawna waaye bu muy demee jël Muusa nga xam ne nii ca jaam ya la bokkoon amul alal amul dara mu jël ko def ko yonentam képp ku ko topp rek day fekk yàlla tax nga topp ko ndax topp ko mooy créer sa bopp ay problème donc ñi ko topp ñëpp yàlla tax mu topp leen naka noonu it ba muy ñëwee ba ci dernier yonent sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na lu yéefir yi doon wax lawla unzila hada alquran ala rajulin min alqaryatayn azim yàlla bu doon yónni lu teewul mu yónni walid ibnu mughira kilifa makka wala mu yóbbu abu masud asaqafi ila axiri kilifa taif waaye suñu borom la ko soob ci ay jaamam toujours yonent day jël koo xam ne amul benn pouvoir ci doomu aadama yi mu jaarale ci moom ay loam su ko defee comme niñ leen ko waxee ña koy topp ñëpp day fekk yàlla tax looloo tax yonent bi alayhi salaam amul woon benn kattan ci waa Makka ñi ngi jàpp ay sahabam yeew ñii ñu leen di mbugal ñii ñu leen di toroxal ñii ñu leen di dàq di leen génne lan la doon wax rawatina waa ala yasir di sumayya ak ka nga xam ne mooy soxnaam jëkkër borom këram ba yaasir ak doomam ja ammaar day ñëw fekk waa kër gépp ñu ngi leen yeew abu jahal yeew leen lu mu doon wax sabaran ala yaasir fa inna mawidakumul janna mu ñu leen leen njabootug yaasir ajjana mooy seen rendez-vous loolee kon mbokk misaal la bu yàlla daan def ci yonent yi moo tax mu ne day man day kattanu mbugal nekkul sama loxo bu doon sama loxo la nekk kon ba tey yàlla teqale na suñu diggante borom boobu nag di dellu di tagg boppam moom mi nga xam ne moom rek am droit bakk di xamal doomu aadama yi ne yeeyul ci doomu aadama di bokkaaleeg boromam borom bi mu ne lii di caabi kumpa moom rek moo ko xam te moo ko kumpa mooy la nga xam ne xewagul ci kaw suuf doomu aadama yi mënuñu koo xam lu dul yàlla lam ci xamle donte ne léeg-léeg mu nekk lu ñuy tuddee kumpa goo xam ne mutlaq lay doon al xaqiqi bi nga xam ne yàlla moo ko xam mbir nag mën na xew doon kumpa ci ñenn fekk nekkul kumpa ci ñi ca des mooy mbir la bu xam am nit ñu ko xam mais lii xew ëllëg tey jii masalan dëkk mel na Sénégal xoy yeeg xarfa foofa yeeg ñaata lañu xam lii nga xam ne daa yitteel doomu aadama yépp commencé ca président ba ca sàmm yay sàmm muy football bii nga xam ne nii kenn xamul li muy yàqal nit ñi ci seeni wareef ana kan ci ñoom moo taxaw ak milliards yi ci brasse yépp mën a taxaw ne équipe bii deux un lay dóor kay trois deux lay dóor kay ndax kenn ci ñoom ñeme na ko wax et pourtant mi ngi ne suñu kanam de ça va se passer juste dans un mois kon dañ ñuy nax rek mbokk ëllëg yàlla ko xam dañuy làmbatu rek kiy làmbatu nag na am mën na jam moom la borom bi doon wax yaxdifuuna bil xayb mi ngi noonu tey waa ji day ñëw ne day def examen ma ne ko yow yow moom da ngay réussir mais mën na réussir mais ndax loolu tax na waa ji daa xam kumpa laa waa ji xamul kumpa loolu mbokk kumpa yàlla moo ko xam ci ay jaamam suñu borom nee na amul benn bakkan bu xam fan lay deeyee amul benn bakkan bu xam moom lan lay nar a def suba kenn xam ko loolee mbokk comme nag yow sa bakkanu bopp suñu borom nee na yow xamoo sa programme nooy xamee programme ma sàmb wala programme ma faati ndax lu mën na nekk abadan kon xëy bu yàlla moo ko xam laa ya'lamuha illa hu yàlla moomu nag nee na xam na li nekk ci jiiri ji ca mbokk li nekk ci ay jiiri ji yàlla rek moo xam ñaata million d'espèces ci gàncax ci garab ci ay xeer ci ay doomu aadama ci ay bàyyi moom moo ci nekk te wallahi boo amoon jot rek tey jii ba ñu wax la tey jii boo jëloon rek benn mètre carré ci suuf lu tolloog taabal ji rek ñu ne ñu nga laaj scientifique yi ñaata ci ay milliards yi mbindaa fan moo nekk ci loolu wallahi da nga yéemu ci borom bi subhanahu wa taala nga ñëw borom bi subhanahu wa taala mu ne xam na lépp tey jii mu dolli ci mu ne xam na li nekk ci biir géej moo ko xam leen ne suñu suuf si buñ ko xaajoon ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp géej la ñaata milliards de tonnes ci ay jën moo nekk ci biir géej ñaata milliards de gàncax ñaata milliards ci nekk ci biir géej yàlla mu ne xam na ko lu tax mooy yàlla ko fa def di yàlla moo ko bind lépp ay xaaliqu kulli shay moo bind lépp moo xam lépp loolu lépp borom bi xam na ko léegi yow nga mën a jàpp xëy na loolu mooy xam-xam général yi waaye borom bi mun a déedéet xatta li gën a nëbb xatta li gën a suufe borom boobu subhanahu wa taala xam na ko looloo tax mu ne amul benn xobu garab buy wadd lu dul yàlla mu ne xam naa ko xoolal loolu rek mbokk xoolal ngelaw bi mu ngelaw tey jii nga xam ne mooy sunu premier taw ci ndakaaru tawlu nañu ci ngëneelu yàlla ak yërmandeem yal na yàlla barkeel ko barkeel taw ya ca tegu waaye da ngay xool rek ngelaw bu ñëw riti ñaata xobi garab lay yóbbaale suñu borom mu ne xob bu nekk programmé woon nañ ca laxwil mahfuus ca téeréem ba ne garab gi nekk place sangam jour sangam minute sangam taalu xob dana ca wat maa min waraqatin illaa ya'lamuha borom bi mu ne pepp yi ñu yóbbu ci lëndëmi ji lëndëmi suuf baykat bi demoon sànni ay peppam nga xam ne day ñëw gas dugal ci pepp bi dëgg suul jàll suñu borom mu ne benn pepp rëcc mu ci wala xabbatin fi zulumatil ard dara rëcc mu ci amul luy wow amul luy tooy lu dul dara rëcc ko ci te loolu mbokk suñu borom yàlla bi mu ñu koy wax feneen danañuy wax ne wa fi anfusikum doomu aadama ak a yéeme pepp dugub bi baykat bi sànni ca pax ma léeg-léeg ba mu koy sànni lii li ñu tuddee mbakkan gi fa ñax mi war a génne daa féete suuf suñu borom yàlla wëlbati ko ci kattanam pepp bi pesewul zéro virgule zéro zéro nangam gramme nga jël lu jege cent gramme mu suuf teg ci kawam suñu borom yàlla génn ci ñax goo xam ne comme coton la mu pour cent grammes yooyu génn loolu ak a yéeme waaye xamal ne yow doomu aadama keroog bala yàlla di sos pepp dugub boobu nga jëloon sànni ci suuf ëppoon na la plus deux millions de fois bi ngay sos yow suñu borom def la benn cellule cellule boobu mu jël ko di ko multiplier ba mu nekk cent mille milliards de cellules moo composé doomu aadama ci la nga xam ne scientifique wax nañ ko cent mille milliards de cellules yoo xam ne cellule bu nekk am na liggéeyu boppam ba ko yàlla subhanahu wa taala sant muy nekk ci doomu aadama bi amul bés bu nekk lu dul lu jege cinquante milliards dana ci dee cinquante milliards remplacé leen ba cellule yooyu dañ naan chaque sept ans doomu aadama boo li mi cellule yi nekkoon ci yaramam yépp dee na yeneen cellule remplacé leen loolu tax suñ carte d'identité yi ñu koy changé tous les dix ans nga gis différence bi am ci yow mbokk suñu borom boobu nga xam ne loolu nga xam ne mooy dundu cellule yooyu nekk des milliers des milliards yu nekk ci yow xamal ne yàlla sàgganewu ci benn waaw ndax li ngay jëf di ko wax ndax loolu yàlla sàggane na ko loolu lu mu lay jàngal mooy amul lenn loo xam ne dana bawoo ci yow misqala zarra loolu lépp suñu borom nee na mi ngi ci ab téere di la xaar yowmal qiyaama borom boobu jalla wa ala ci peegaayu xam-xamam boobu nee na lépp jëkkoon naa nekk ci téere yemul ne xam na ko waaye da koo bindoon avant muy am ndax moom amul la nga xam ne mooy dimb ak tey mooy caabi kumpa moo ko dajale te mooy tey jii programme woon na ci téeréem ba nga xam ne moo nekk ca lahul mahfuz cinquante mille ans avant mu bind asamaan ak suuf daal di ne tey jii day vingt sept juin ndakaaru dana taw taw boo xam ne tant de mètres cubes d'eau lay doon nii lay séddale ko nii lay séddale ko lenn loo xam ne nii misqala zarra luy xew lu dul nekkoon na ci téere borom bi subhanahu wa taala mi ngi noonu Cheikh Ali
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون barakallahu fiik suñu borom jalla wa ala mu ni wa huwa allazi yatawaffaakum bil layl seen borom yàlla day moo leen di faat ca guddi wa yaalamu ma jaraxtum bi nahaar ca it xam na lépp lu ngeen di faggu di ko liggéey ca bëccëg summa yabaasukum fiihi gannaaw ba mu génne leen ay dekkal leen ca bëccëg ba li yuqda ajalun musamma ngiree ñu dogal dig boo xam ne tudd nañ ko ba pare summa ilayhi marji'ukum gannaaw ba ca yàlla mooy seen delluwaay summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluun gannaaw ba mu xabaare leen lépp lu ngeen nekkoon di ko jëf wa huwa alqaahiru fawqa ibaadi mooy ki not ca kaw ay jaamam wa yursilu alaykum xafada dana yónni ci yéen ay wattukat xatta ida jaa ahadakum almawt ba baa muy dëkkal kenn ci yéen li nga xam ne mooy ak dee tawafatuhu rusuluna mu faat ko suñuy yonent wa hum laa yufarrituun te ñoom day duñu gàttam lu ci dara summa ruddu ila allahi mawlaahum alxaq gannaaw ba ñu delloo leen ci yàlla ki nga xam ne mooy seen kilifa dëgg seen péyteg dëgg alaa lahul xukmu ay waay yàlla moomu xanaa nekk na kay di ko ñeel ab atte wa huwa asraul xaasibin ca moo gën a gaaw ci ñépp ñoo xam ne dañuy régler mooy mi ngi noonu ay jaamam yowm alqiyaama qul man yunajjiikum min zulumati l barri wal bahr neel waaw yéen ku leen di musal ci lëndëmi géej gi lëndëmi jéeri ji ak lëndëmi géej gi tad'uunahu tadarru tadarruan wa xufiya ngeen di ko woo ci toroxlu di ko woo ci di ko nëbb la in anjaana min haadihi naan cey yàlla day bu ñu musalee ci mbir mii tey la nakuunanna min ash-shaakirin kon di dañ bokk ci jaam yi koy sant qulillahu yunajjiikum minha neel yàlla moo leen di musal ca tiis woowee wa min kulli karbin moo leen di musalit ci bépp tiis wa- ak njaqare summa antum tushrikuun gannaaw ba ngeen di nekk di bokkaale ak seen boroom mbokk suñu boroom wax nañu ne xam na li nekk ci jéeri ji lépp ak li nekk ci géej lépp lu waral loolu mooy moo ko fa def loo gis rek xamal ne yàllaa ko bind allahu xaaliqu kulli shay léegi nag mu ñëw ci ñun mu ne xam leen ni yàlla moo leen di faat bu guddi jotee moo ko faat googu mooy lan mooy heure bu ñuy nelaw allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha walati lam tamut fi manamiha am nañu yàllay faat jël seen ruux ñoo ñooy ña dee moo am ñeneen ñoo xam ne ci seen biir yi nelaw la yàlla di jële seen ruux xamal ne mbokk doomu aadama yàlla dafa def ci moom lu ñuy tudde ruux ruux googee bi ñu ko laajee suñu yonent alayhi salaam dana ruux day ci seen mbiru boroom la bokk ndax li ngeen am ci xam-xam dafa néew pour mën ko comprendre mbokk portable bi ñi nga xam ne ñooy Sonatel am na benn ruux buñ ciy dugal bu leen neexoon léegi nga dem dañoo sàcc sam portable ñu daal di coupé ruux googu am déet mooy carte bi amatul benn valable mais loolu nga xam ne muy dugg ci carte bi ba tax ngay mën a woote wala ñu jël ko ba doo mën a woote ndax doomu aadama dana ko gis doo ko mën a gis ndax tey jii quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci doomu aadama yi mën nañ comprendre ni muy demee déedéet il faut nga am niveau bu koy pour mën a comprendre loolu am maa nag ruux doomu aadama niveau mënul kawe kawe ba mu comprendre ko ala kulli xaal am naa ak yow juróomi rapport rapport bi njëkk bi nga nekkee sa biiru yaay ñaareel bi mooy bi nga juddoo ñetteel bi mooy bi ngay nelaw ñeenteel bi mooy bi nga dee nekk ci bàmmeel juróomeel bi mooy bi nga dëkkee yowmal qiyaam nga xam ne dootul teqalikoo ak yow ba faw su ko defee ci biiri nelaw yàlla mooy jël suñu ruux loolu tax doomu aadama di gént ku deewoon bu yàgg nga gént dajeek moom mu wax la ay wax yoo xam ne sax mën nga koo jëriñoo su ko defee bu neexee yàlla mu delloo la roox gi nga yeewu loolu tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam heure bu mosaan di tëdd di nelaw bokkoon na ci ay ñaanam te yàlla bu dee ne da ngaa jël sag roox ci nelaw yi ma faatu ay yàlla yàlla na nga ko yërëm su dee da nga ma koo delloo it yàlla yàlla nag ma ko wattul ni ngay wattoo sa jaam yu baax heure bu ma sànni nelaw bu yeewu it day wax ne ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu dundalaat gannaaw ba mu ñu faatee waaye lu mu yàgg yàgg it ci moom la ñuy dellu alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur borom boobu it ne kon bu bëccëgee mu dekkal leen lépp lu ngeen di def ci bëccëg bi it xam na ko ah di wax nañu sànq ne xob bee wadd ca garab ga sax xam na ko tepp yee nekk ci biir suuf xam na ko mu ne ko ñet xam leen ne lépp lu ngeen di liggéey xam nañ ko yowmal qiyaama daal leen dajale leeralal leen lépp loo xam ne yéen a ngi ko doon def ci tamit mbokk loolu yi moom la ab jullit di war a bàyyi xel amul looy def ci kaw suuf amul looy wax ci kaw suuf lu dul facture ba mag lay xaar yowmal qiyaama ñu ngi noonu loolu la borom bi subhanahu wa taala wax mu ne nag mooy ki nga xam ne moo not ci ay jaamam boole seen te mbokk dañu xam ni yàlla subhanahu wa taala moo moom suuf moo moom ñi ci nekk am na lu ñuy tuddee grande puissance waaye mbokk puissance benn rek la muy puissance yàlla subhanahu wa taala loolu tax te grande puissance la Amérique numéro un bés bu nekk yàlla yónnee leen ndox mu ñu mënul dara yónnee leen ngelaw lu ñu mënul dara nattu leen nattu yu ñu mënul dara wal qaahir mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne moo not ci kaw ay jaamam amul kum mën a doon lu dul ni yàlla moo la juddulu di la màggal mënoo ci dara di la màggatal mënoo ci dara di la feebaral mënoo ci dara bis mu rey la ca kenn mënoo ci dara ana mboolem mi buur yi jiite woon àddina bi cent ans ci gannaaw commencé penku ba sow anañu ñoom ñëpp suñu borom yàlla lem na leen dugal ci biir suuf ay huwa alqaahiru fawqa ibaadi mu ne nag dana yónni ci ñun ay wattukat xafaza muy malaaka malaaka yooyu ñaari rôle la ñuy def benn rôle bi mooy ñooy aar doomu aadama lu yàlla dogalul ci moom du ko dal benn waay dugg ci benn accident njaganjaay ba daje nag camion ba face à face ñu ne njaganjaay ba tasaaroon benn waay quinze morts am ko taxaw moom dara jotu ko ndax yàgguloon gis loolu loolu mbokk da ngay gis ci wattu borom bi la subhanahu wa taala koo xam ni nii ma ngay dox ci tali ba fraction de seconde moo tee oto bi fér ko yàlla subhanahu wa taala musul ko ila axiri ñaareelu wattu bi mooy lan mooy mboolem li nga xam ne yaa ngi koy jëf malaaka yooyu ñu ngi koy enregistré dara du leen rëcc borom bi nag nee na ci lii la doomu aadama di nekkee baba nag bis di ñëw ci bis yi dee dikkal doomu aadama su dee dikkale doomu aadama nag mboolem ñi dee ci kaw suuf kenn moo leen di rey muy malakul mawt waaye malaaka boobu dafa am ñu koy jàppale su dee ni nit ko baax la yal na yàlla boole ñu ca dafay am malaaka yu yàlla jox taar bu rafet ñu jële benn toile bu taaru ci biir aljanna daal di ñëw wër waa ji waaj a faatu di ko wax wax ju neex di dalal xelam heure bu malakul moo fi génnee roox gi ñu daal di koy récupérer ci loxoom daal di koy dugal ci toile boobu nga xam ne ma nga jóge ci aljanna ànd ak xet goo xam ne day ubbale asamaan ak suuf ko defee ñu yóbbu ko ci kaw asamaan histoire bu gudd na trop ala kulli xaal bu dee safaan ba yàlla da koy booleeg malaaka yu ñàng ci gisin ñu daal di jël ay la nga xam ne ay feer la yu ñu jële ca sawara heure bu malakal moo ji de ruuxam ca lañ koy lëmës mu ànd ak xet goo xam ne day ubbale asamaan ak suuf la cay tegu lu gudd la waaye ala kulli xaal suñu borom mu ne la yufarrituun malaaka yooyee ordre bi leen yàlla jox mooy ma dem de mii day place sangam la war a dee heure sangam minute sangam duñ ci yokk dara duñ ci wàññi dara fokk bu sa dee jotee malaaka yooyu dañu ñëw duñu jaawale nit ko baax ak nit ko bon du ñu avancer heure ba du ñu yeexal heure ba fu mu jotee rek daan ñëw loolu mbokk moom la ab jullit di war a bàyyi xel mu nekk loo xam ne ni lu tiitlu la mooy mi ngi suñu kanam ñun ñëpp xam nañ ko ca kenn xamul kañ lay doon su ko defee loo man man ba góorgóorlu ba heure bu ñu lay ñëw yow loolee du la fekk ci looy wéccu nga war a góorgóorlu def ko borom bi nag nee na heure boo xam ne malaaka yooyee faat nañ doomu aadama bi ña ngi koy delloo ci yàlla mooy bés ba na ngeen dégg ci tàgg yi diw faatu na daan ko jébbal boromam di loolu ngeen di dégg na am noonu doomu aadama yi jëli jëmm ji di ko jébbal boromam ca bàmmeel ba malaaka yi ñoom ña nga jël ruux ga di ko yóbbu fa sob yàlla imma fu ñu koy bànnee xale wala imma fuñ koy mbugalee yàlla moom la nga xam ne moom dong mooy péetee dëkk doonte ne lu ëpp ci doomu aadama yi am na ñeneen ni ñuy féetewoo ci du yàlla waaye mbokk koo féetewoo ci du yàlla dee daa teewul rek waaye bu dee teewee rek nga xam ne yàlla dong kañ war a féetewoo borom boobu nag ni atte ci loxoom la nekk mooy atte lu ko neex ci ay jaama ku mu neex teral ku mu neex toroxal ku mu neex jubal ku mu neex réeral mooy mooy yore atte bi ca it moo gaaw ci muy réglé ay jaamam boole milliards yi dajee ëllëg yowmal qiyaama atte ba mu leen di atte ak atte benn jaam ñoo yem ci moom jàll wa ala borom boobu nag wëlbatikuwaat di laaj ay laaj rawatina lu bari ci nit yi tey mel comme ni waa yéefiri màkk yi meloon ca mooy toujours ñu ngi woo keneen ku dul yàlla di sant keneen ku dul yàlla suñu borom nag ne waaw ana kan moo leen di musal ci ci bu ngeen nekkee ci lëndëmi jiiri ji wala lëndëmi géej nattu dal leen ana kan ngeen di woo ne ko suñu musalee ci lii daañ bokk ci ñuy sant loole la chaque ne mbokk yàlla kese la waaye ñi fekkee woon tafsir ya jëkk a jiitu bokk na lu bari li ñu leen doon wax lu bari ci nit yi tey yéeféeri démb ñoo leen tane ci benn côté côté bu ñu leen tane mooy yéeféeri démb heure buñ ma sànn ñàng mbir yi jaxasoo yàlla kese la ñuy woo am naa ñi ci tey fañ gën a jege dee lañ gën a bokkaale loolu nekk musiba bu rëy ba kenn ci maami réew mi doon wax naan kéeféer ga woon moo tane diine tey ci ndax yéeféer yi bu njëkk buñ ma sànn jàq woo yàlla kese am na ñun dañuy jàq di woo keneen ko dul yàlla borom boobu nag subhanahu wa taala ne xam leen ne yàlla kese moo leen mën a musal ci njàqare boobu waaye yàlla kese moo leen di mën a musal ci njàqare bi ñeen bu mu mën a doon min kulli karb ca loolu it mbokk la jullit war a bàyyi xel galawaay jullit xamal ne natt bu la yàlla teg yàlla mu ne am na kàttan ci teggi ko ak ñàkk la feebar la tumuranke la sanku la bitim réew ak lu mu mën a doon tiis woo teggo sa kaw nga la waay dellul ci yàlla sellalal sa diggante ak sa borom min kulli kaar ba la yàlla wax mu jox ñu ci misaal yu bari danga ci jël benn misaal rek yeneen ci yàlla yunus a ngi nii yàlla dogal mu dem géej ci sar bu gudd benn bàlleen jël ko wann ko dugg ak moom ca profondeuru géej gi fi zulumaatin salaas mais bi mu woo yàlla ne ko yàlla kenn yeyowul ñu ko jaamu ku dul yow nangu naa ne ci tooñkat yi laa bokk suñu borom yàlla nee na dama ko musal te nii lay musale bépp jullit bu ma gëm di ma woo moo tax gaa yi nit ki mën na nekk situation bu gën a critique situation bi Yunus a nekkoon abadan ci biiru bàlleen ci biiru géej xalaat doomu aadama mënul yegg foofu mais teewul suñu borom nee na bi mu ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin borom bi mu ne musal naa ko wa kazalika nunjil muminin suñu borom nag nee na mooy musal julin ci bépp karb galla waaye lépp lu la dal del wax allah laa ilaha illa allah wéetal yàlla te mi ngi noonu am na bu ci gàtt yeneen tibaari sam daana jàngal nit ñi ci tiis allah allah allahu rabbi la ushrik bihi shay'a nee na képp ko nekk ci tiis naan ay yàlla amul bokkaale wu ma la ci dara loolu rek day tegge tiis rawatina la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min azalimin kenn yeyul ñu koy jaamu ko dal yow bokkoon naa ci ñi nga xam ne nii dañoo toon almuhim wéetalal sa borom ca woo ko ca xam ne bépp tiis boo xam ne dal na la yàlla ci joxe ndigal ca xam ne kenn mënu koo teggi ku dul yàlla ca yàlla am na yërmaande teggi ko am na kàttanu teggi ko borom bi mu ne nag lii day mooy la nga xam ne moom lay wax samay jaam waaye li ëpp ci jaam yi ñoom dañuy bokkaale ak seen borom ala kulli xaal kon mbokk ñu ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu boole ci jaamam yi ko wéetal bañ ko bokkaale ak dara jaamam yi ko topp topp ab yonentam bépp tiisu àdduna tiisu àllaaxira yàlla na yàlla teggal ñu ko fuñ ko foogewul wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain